mu joxe chiffre endettement Sénégal 76 pour cent du PIB ma leeral ne endettement boobu mu joxe ñaari pàcc la dafa am endettement administration centrale ak endettement structure parapublique généralement réew yi bu ñu leen di comparer seeni endettement administration centrale la ñuy comparer boobu 68 virgule 2 pour cent maanaam tey boo ñu doon comparé yeneen juróom réew mois nga ji seen taux d' endettement boo demee ci 76 yu juum da ngay dem ci 68 virgule 2 bi boobu c' est inférieur à 70 pour cent